liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bi moo leen tax a jóg te sax dàkk di ko def saa su ne loolu moo waral daayira Touba ca kanam nooru daari ni ci atum 2019 bi bëri na ay réalisation yoo xam ne amal na ko ci dëkk bu sell bi di Touba. boo jëlee wàllum wér-gi-yaram amoon nañ naalub ñeenti poste de santé yoo xam ne bëgg nañ koo taxawal fii ci Touba Mbacké benn bi nga xam ne ginnaaw ñu tegee woon xeer bi ci teewaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir liggéey bi door ñu ànd kook mbooleem taalibe yi nga xam ne saa su ne ñu ngi dugal seen addiya ci daayira Touba ca kanam ba liggéey bi ni mu àggee mi poste de santé bi nga xam ne moo nekkee ci quartier Touba Lansar poste de santé bi nag ñu def ci lu toll ci téeméer ak ñeent fukki million ci franc CFA loolu bokkul ak équipement yi nga xam ne moo waroon a dem ci biir poste de santé bi mu nekk poste de santé bu mucc ayib méngoog jamono ànd ak logement ICP bi am infirmerie maternité ba ci ambulance ñu indaale leen ko lépp loo xam ne rek poste de santé war na am indil nañ ko bii nga xamante ni Touba ca kanam moom la taxawal fii ci quartier Touba saax poste de santé bi biñ koy inauguré Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides teew na fa visité ko ànd ak mbégte lool ginnaaw bi mu def fay ñaan liggéey bi nag door na ci poste de santé bi mu tàmbali resevoir ay malade lileen leen nag jur na ci mboolem askan wi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci ci Touba Lansar ci poste de santé boo xam ne yitte woon nañ ko woon te mu jaaree ci daayira Touba ca kanam ngir ñu taxawal leen ko. jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum paj fii ci Sénégal muy ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak kilifa yi nga xam ne dañuy yëngatu ci fànn googu fii ci région de Diourbel visité nañ poste de santé bu Touba Lansar bi. ginnaaw ne meeku gi ministre de la santé fësal na ak mbégteem ci daayira Touba ca kanam ndax jàppalu woon ne daayira bi mën naa taxawal lu tollu nii. maa ngi euh, vraiment rafetlu bu baax li ma gis tey fii euh, Touba ci kanam euh, vraiment doon naa ko dégg mais tey li ñu démontré ci santé nekk na loo xamante ne vraiment en tant que ministre de la santé de l'action sociale rafetlu naa ko bu fa lu yam mais yéen yéen ñu mën. parce que organisation ma gis si biir ak qualité travail bi ak engagement bi jafe na nga gis au niveau poste de sant maa ngi leen di remercier am na yeneen yoo xamante ne yu mel nii yu ñu sumb ba mu mat ñeent yaakaar naa lañu ma wax danaa ñëw personnellement visiter ko ñoom daal nañu gëm ne maa ñoom ñoo ànd si mission du ñu gëj di déggante parce que li ma gis tey vraiment dal na sama xel maa ngi leen di féliciter bu baax. poste de santé yi nag daayira Touba ca kanam ñeent la ci naal benn bi moom moo nekk Kër Gol liggéey bi dooroon na bu yàgg ba fi mu toll nii léegi liggéey bi àgg te yéene Touba ca kanam moom mooy ñu jébbal ko Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci màggal gi bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ca Daarul Xaddim liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax bi ci topp nga xam ne Bogorel lañ ko taxawal fii yéeg ay weer yu néew dana mat bañ jébbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Xaddim ñeenti poste de santé yooyu nga xam ne moom lañ taxawal fii ci Touba dañoo tànn quartier yi nga xam ne woon nañ ko lool te it bu ñu soxlawaan faju dañ daan déplacé wu ci lu sori lool. mbooleem ñeenti poste de santé yi nag ñu xayma ko ci lu ëpp juróomi téeméeri million francs fa te boolewuñ ci équipement yi nga xam ne moom lañ def ci biir poste de santé yooyu le ba léegi ci wàllum wér yaram Touba ci kanam dimbale nañ banque de sang bi nga xam ne moo nekk ci hôpital Matlaboul Fawzeyni organiser fa journée boo xam ne dañ doon maye deret ngir jàppale banque de sang bi nga xam ne moo nekk ci Touba ngir ñu bañ a manqué deret benn yoon ginnaaw loolu sax am na oto boo xam ne jébbal nañ ko banque de sang bi muy bërëb bi nga xam ne fi la ñuy denc deret ji nawetub ren bi xaw naa dugg ci màggaluk Touba gi loolu nag dafa laajoon ñu waajal ko bu baax a baax ci jël ay matuwaay ba li nga xam ne moom moo di mbedd yi bañ a taa waaye ndox miy jaar ci mboolem kano yi dara bañ koy gàllankoor ci opération bi nga xam ne amaloon nañ ko doon sekkar ci mboolem kanaal yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Touba. Touba ca kanam def na ci liggéey bu am solo muy jumtukaay yu yaatoo yaatu yoo xam ne ñëw na jébbal ko Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif mi nga xam ne moo jiite woon liggéey bi àndoon kook waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi. Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif nag santaan na bu baax daayira Touba ca kanam. jumtukaay yi ñu war a liggéeyee li war a def toppatoo nañ ko ñoo ko boo jëlee wàllum inondation bi muy mbedd yi nga xam ne dañuy taa fii ci Touba Touba ca kanam jënd na ñaari pompe yu mag yoo xamante ni boole kook ay raakool yoo xam ne toll na ci ñaari kilomètre ngir ñu mën a jëlee ndox mi ci bërëb yi nga xam ne dafa taa yóbbu ko ci kanaal yi liggéey boobu nag ñu lëkkaloo ci ak waa sapeur ngir ñu pompe mboolem quartier yi nga xam ne mbënn mi da leen a sonal fii ci Touba liggéey boobu nag def nañ ko ci diiru weer. ba nawet bi tàmbalee ba tey Touba ca kanam jënd na ñaari pompe ànd ak euh, pompe sapeur yi Euh, ñu dugg ci dëkk bi fépp foo xam ne am na déversoir jege na fa ñu mën di pompe di fa yóbbu. lu ëpp un mois ñu ngi ci liggéey bi heure bu ñu xëyee euh, ak barab ba ñuy xëy. bu ñu tàmbalee ak léegi dem nañ euh, fi ma di Kër Ñang dem nañ fi nga xam ne moom moo di Ndamaatu Ndamaatu mën naa mën naa daanaka dañ faa xaw a dëkk Daaru Xudóos dem nañ fi nga xam ne mooy wetu kër sëñ Xaadim Guèye ak euh, fi nga xam ne moom moo di euh, boo dem kër sëñ Bass Abdou Khadir ci virage bi foofu tamit day fees dell ak ndox fii ñu koy manque di Daaru Minam di ko verser ci déversoir yi ci fànn nag am na ci quartier yoo xam ne dafa jéggi woon dayo lool ci ni meloon ci mbënd waaye benn oto ñemewu fa a dugg bokk na ci fiñ naan mbaar ya nekkee ci Madiana mu nekkoon ci melokaan bu yéeme lool ak xet gu bon goo xamante ni ñi dëkke ci bërëb yooyu mënuñ ko woon a noyyi bi Touba ca kanam ne meekoo melokaan wi ci la jóg génne koppar yu takku lool luye ay camion ay caterpillar waaye ut ay pomp ñu jële fa mboolem ndox mi nga xam ne moo nekkoon ci quartier bi ginnaaw biñ mànxee ndox mi ba mu àgg ci lañ indi ay camion suuf yu takkoo takku daal di koy sëkk ngir dem beeg dikk bi gën a mën a yomb waaye gan yi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si duñu am benn jafe-jafe ci buñ jëlee taxi mu mën leen a dugal ci quartier boobu nga xam ne moom moo di mbaar ya liggéey bi nga xam ne nag Touba ci kanam defati na ko nekk na lool askan wi nga xam ne ñoo dëkkee ci mbaar yi fii ci Madiana bég nañ ci lool. at mu nekk ndox a fii nekk demkat yi amu ci benn demkat boo xam ne boo xasee taw boo ko nee foo jëm dalay wax dañuy dem ba mu yàgg ñu ne la mënatuma dem loolu nag lii doo nga ko mën a dindi ndokk bi leen yàlla indee. Touba ca kanam moom Touba ca kanam rek. Touba ca kanam li ci xew mooy askan wi gis na ci seen bopp loo ngi ñaan yàlla jàppale leen ci barke sëñ Touba ba fu ngeen bëgg a egg ngeen egg fa ndax fii ngeen ñëw tey nangami at yii bu nawet jotee kenn du fi xool sa bët ndax mbalit baaxul tey jii bisub tey dong dong dong xool bii fi nit ñi xool xool bu rafet rek mën naa yóbbu Touba ca kanam ca fu ay eh, eh, at a ngi nii Madiyana moom di doy waar lool su nawet ñëwee mm-hmm. kon defe naa tey suñu demee ba Touba ca kanam ñëw def lii te Touba ca kanam defe naa ab liggéey yëmut fii rek mm-hmm. képp ku di ab murid rek gis nga ci sa bopp ñàkkee saw ñaq wóorut ku ci soo xool séddul rek da nga dul dara doo tiijaan doo murid doo leneen ku ci soo xool séddul rek doo dara waaye jënn jëpp joo sa xol sedd na ci te bu ñëpp meleen ne yéen itam day billaahi leen dem ca kanam wajalilaahi maskani na lii dafa sedd saam xol waxu waxuma ko ngir ngistal waxuma ko ngir bëgg ku ma gis waxuma ko ngir leneen ki sos lii yàlla na fi yàgg ate rek loolu mën a nekk Touba ca kanam nag ku ci des ginnaaw it da nga ko des ba ba ba fan jëm képp ku ci jiitu yi na leen wóor ne kanam la jëm bu dee lu jëm ci wàllum setug dëkk bii di Touba ginnaaw juróomi camion yuy an mbalit yoo xam ne Touba ca kanam jëndoon nañ ko jébbal ko Serigne Mountakha ba Bachir ginnaaw bi mu jébbal yooyu le oto ñi nga xam ne ñoo di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi sas leen liggéey bu ni mel bi ñuy waajal màggalug ren gi ci atum 2019 doon seetal dëkk bi ngir mën a dalal gan ñi Touba ca kanam jënd na ay nag yu bari boole kook ay toni toni ceeb jébbal ko sëriñ cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne moo jiite woon liggéey bi àndoon kook waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi. ci turu sëriñ cheikh moom cheikh Abdou Latif mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sant ñu ñu ñëw euh, mottalil ko jëf ji ngir bari lool ay yitte yu mu nekk euh, bëggoon ñu féete ko ci wàll gi euh, tubaa ci kanam moom li sëriñ bi wax rek doy na sëkk mépp mbooloo mu mas a jug am yéene liggéeyal sëñ Touba te di ci dox. ci mbooloo mi la ëpp yaakaar li tax sëriñ bi am ci yaakaar murit yëpp am ci yaakaar xam ne lépp lu ci tàbbi dana dem ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi yéen ñi nekk ci kanam moo ko moo ko waral sëriñ Abdou Lahad daf daa wax ne eh, sëriñ bi ku wattu doo ruur ku mu sàmm kenn du la ruur te ku mu dimbali doo ko soxla soxlawaat fenn kon nag yàlla na leen wattul boppam sàmmal leen boppam dimbali leen boppam barke mbootum xasida yi ci bi ci wàllum njàng mi Touba ca kanam liggéey nañ ci liggéey bu am solo fii ci Touba Mbacké complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne sëriñ Mountakha moom lay taxawal ñu naan ko université bi keroog bi ñuy teg xeer bi rek waa Touba kanam dañoo génne ci saa si téeméeri million jébbal ko sëriñ bi ne ñoo ko tàmbalee ci liggéey bi jëf ji nag jur mbégte ci saa si ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ba am sax ay kàddu yum ci yëkkati. fu loolu rek laa man maam laa laa xam moom laa am yaqiin kàddu sëriñ bi juraat mbégte lool ci waa ca kanam ñu gën a jaajuwaat daal di jaayantewaat ni ci liggéeyu université bi sasoon nañ fi benn batiment boo xam ne ci lañuy ñuy jàngalee majalis muy batiment R plus 3 boo xam ne liggéey bi ñu ngi ko xayma ci juróom-ñetti téeméeri million maanaam 800 millions de francs CFA. liggéey boobu nag ñoom daayira Touba ca kanam ñu jël ko jébbal ko ñoo xam ne ay taalibe murid lañ. doon ay ingénieur seen xam-xam màcc ci wàllum tabax ki nga xam ne moom moo leen jiitee di leen taxaw moom moo di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne bu sa Dieng ñoom daayira Touba ca kanam ñuy wéyal liggéey boobu nga xam ne moo jëm ci université bi Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr bi mu koy nemmeeku ci wàccaayu màggal gi fësal na ak mbégteem ci Touba ca kanam ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ci complexe bi nga xam ne dafa ñor lool xalifa général des Mourides waa Touba ci kanam dem naa ci seen batiment ba biñ leen ko joxee léegi yàggut waaye seen jiite ak seen positif ndax ñoom itam jël nañ benn bâtiment ci majaalis bi di ko tabax kon ñoom itam ñi leen di sant ci seen positif ak seen taxawaay ci niñ koy defee ci mboolem liggéeyam Serigne Touba bépp di leen ñaanal bu baax li nga xam ne yéene nañ ko jëfal Serigne Touba ci dëkk bi ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla euh, suñu suñ borom kàttanal leen waaye lépp ñu àggale boo jëlee wàllum ndox mi ci dëkk bi waa Touba ca kanam def nañ ci jéego yu am solo ci wàccaayu màggal gi rek am na fi ñaari forage yoo xam ne dañoo paanoon pompe bi ko Touba ca kanam yëgee ci saa si la génne xaalis ñu jënd ñaari pompe yooyu daal di koy monter ci forage yi nga xam ne ñoo paanoon di rahmatul ahad ak bi nga xam ne moo nekk ci Baxdaad yemuñ ca ne dañoo jënd ay réservoir yoo xam ne benn bu ci nekk mën naa def juróomi junniy litre ci ndox ngir séddale ko askan wi ci yenn quartier yi ngir ñuy bañ a manqué ndox ci diirub màggal gi jàppale nañ it quartier yi nga xam ne dañoo sori lool te ndox mi àggu fa woon ci ay branchement bañ mën a am ndox te duñu am benn coono. di wax ne lii moom la ñuy wax PPP maanaam partenariat public privé ndax administration état mënul lépp dafa am ñoo xam ne ay privé lañu yéen rawatina. non seulement privé ngeen mais ONG ngeen wala association bu am doole boo xam ne mën na sóob loxoom ci dëkk bi waaye jàppale gouvernement bi ci li muy liggéey xam nga ne OFOR euh, kuréelu gouvernement la man mii ndawal buur laa waaye pompe yi ngeen jël pour forage yi mën a mën a baaxaat defaraat ko ba nit ñi mën ko jariñoo loolu da ngeen ko dimbaloo gouvernement Sénégal bi nga xam ne moom laa teewal donc tey jàpp naa ne partenariat boobu yéen doxal ngeen ko moo tax man ci turu chef de l'État ak gouvernement bi yëpp dama leen di gërëm remercier leen. bu dee lu jëm ci éclairage public maanaam leeral mbedd yi fii ci Touba Touba ca kanam yëkkati na lu toll ci juróom fukki million ci sunuy koppar dal di ciy jënd ay làmp ngir séddale ko quartier yi nga xamante ni dafa lëndëmoon kurus. waaye it mboolem yi nga xam ne seeni làmp dafa lakkoon ñu daal di koy changé yemuñ ci ne ñoom Touba ci kanam soññoon nañ ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ngir kenn ku ci nekk mu taal benn làmp ci buntu këram ngir ñu gën a mën a leeral dëkk bi loolu biñ ko xaymaa mi ngi toll ci ñaar fukki million ak juróom ci sunuy koppar. ñaari voies yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci Mbàkke jëm Touba bu njëkk nii la meloon bëri ñax lool ak mbalit ñaaw lool ci gisin lu ni mel daayira Touba ca kanam nooru daara nii ñu bëgg bërëb bi mel nii dem gaaral seenu bëgg-bëgg xalif général des Mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ci kàddu yi njiital mbooloo mi di sëriñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Maodo Fadal ñoo xalaat dëkk bi ñu ne garab dafay manqué garab yi dafa may na da manqué dëkk bi ma ne daanaka tàngoor bi ëpp sax ñàkk garab moo ko waral ah, ay garab ay garab ah, waaw ñu ñu xalaat rek bëggoon fee am ci amee ndigal mhm. wut ay garab yoo xam ne ko def ci yokk yi dëkk waaw waaw waaw loola waaw waaw loola euh, taw tawfeex mooy mu jaare ci noonu ci yitte ju mat sëkk waaye loolu moom amul lenn lu ñuy jëm ci dëkk bi doo mhm. ko gën a yitteel Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir rafetlu bu baax a baax li nga xam ne Touba ca kanam yéene nañ ko daal leen ciy dox ndigal ñu dem seeti Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khader wan ko projet bi nga xam ne am nañ ko muy projet naatal Touba Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khader daal ci def déclaration ci turu xalifa général des Mourides. Serigne bi jox na ndigal taalibe yëpp képp koo ko mën nga ànd ko ñoom ci lépp loo ci mën ci sa kattan sa alal ak sa jëf ak ànd ak ñoom ci liggéey bi ca tàmbali ba ba ca mujj ga. ginnaaw biñ ci amee ndigal ci la Touba ca kanam door phase bu njëkk bi moo di seetal li dale ci rond point Mbàkke bi ba ci rond bu Touba bi mbooleem lu fay mbalit ñu dindi ko daal di bay ñax mi ngir waajal seen projet bi nga xam ne moom lañ dëppee naatal Touba moo di jëmbat garab ci distance bu toll ci ñetti kilomètre li dale ci entrée Mbàkke bi ba ci rond bu Touba bi. opération bi ñu doon amal nag doon bay ak waajal bërëb bi ànd nañ ko ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak association yi rawatina waa croix rouge ginnaaw biñ ko setalee ci lañ waajal bërëb bi ngir installer mbooleem li nga xam ne dafa jëm ci barrière ak ay poteau yoo xam ne dañ koy clôturer mbooleem garab yi nga xam ne moom lañ jëmbat ngir mën koy aar ci lépp loo xam ne mën na koy yàq rawatina jur gi ci noone association yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi menuisier métallique yi maçon yi ak mboolem ouvrier yi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ngir ñu installer poteau yi ak barrières yi ngir waajal journée bi nga xam ne ci la ñu war a projet bi di naatal Touba. le 8 septembre 2019 dëppook juróom-ñetti fan ci muharram atu 1441 ginnaaw gàddaay yontu bi salallaahu alayhi wa salaam ci la Touba ca kanam Nour daare ni lancé projet bi nga xam ne moom lañ dëppee naatal Touba ànd ci ak daayira xidmatul xadim bu Eaux fore ak Touba ville verte mbooloo mu takkoo takku wuy si leen ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ngir fas yéene jëmbat garab yi nga xam ne moom la ñuy def ci diggante ñaari voies yi nga xam ne moo bàyyeekoo Mbàkke ba ni ngay duggee Touba. liggéey bi nag nekk na liggéey bu am solo boo xamante nii ay taalibe bàyyeekoo nañ fu ne ci biir réew mi ngir ñëw mën koy teewee ndax liggéey bi solo gi nga xam ne am na ko. xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñëw na ba ci bërëb bi daal di jëmbat garab ñaan fi waaye it rafetlu bu baax a baax jëf ji nga xam ne waa Touba ca kanam ñu ngi koy def te ànd ceeg ñoom. noonee la ko kilifa yu bëree bëri defee bokk na ci Serigne Fallou Mbacke moom Serigne Modou Aminta fal Serigne Abdou Samad moom Serigne bu ak yeneen kilifa yu takkoo takku kenn ku ci nekk ñëw participer ci projet bi nga xam ne moom mooy naatal Touba ñu doon jëmbat ay garab. mbooloom taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp a génn ànd ak waa daayira Touba ca kanam ngir liggéey liggéey bu am solo bi nga xamante ni dañ koy jëfal Serigne Touba ci dëkkam bi. taxaw googu nag jëm ci dëkk bi daayira Touba ca kanam duñ ci tàyyi benn yoon ndax fépp foo xamante ni war nañ faa liggéeyal Serigne Touba wala ñu taxaw fa ci mbooleem bëggi bëggi askan wi wala taaral dëkk bi daañu ko def. li dalee ci entrée Touba bi nga xam ne moo nekk ci Mbàkke ba ni ngay àggee ci rond bi nekk ci gendarmerie bi booy dugg Touba muy distance boo xam ne toll na ci ñetti kilomètre lépp lañ jëmbat lu toll ci ko cocotier di garab yoo xam ne gëstu nañ ba nemmeeku ne adapté wu na ci bërëb bi moo tax ñu daal di koy tànn ngir aar ko nag moo tax ñu protéger ko ci ay barrières yoo xamante nii dañ koo def ci juróom benn kilomètre ñetti kilomètre ci dem bi ak ñetti kilomètre ci dëkk bi lépp rek ngir liggéey bi mën a am suivi loolee sax moom moo tax liggéey bu ne mel ànd nañ ci ak waa Maawu mu jëm ci arrosage yu mboolem plante yi nga xam ne moom lañ jëmbat ci diggante bile. lii nag di liggéey bu am solo boo xam ne Touba ca kanam defati nañ ko ginnaaw buñ ci amee ndigalu xalif général des Mourides loolee nag ñoom mboolem daayira bi di soññaat ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñu gën a fonk li nga xam ne moom moo di garab di soññ képp koo xam ne mën na koo jëmbat ci këram wala ci buntu këram mu def ko ngir ñu gën a mën a naatal xam ne moom moo di dëkk bu sell bii di Touba ndax garab dafa am solo lool ci dëkkuwaay bëgg-bëgg daayira Touba ca kanam nooru daaree nii mooy àndandoog mbooleem taalibey murid yi ñu liggéey bërëb bu sell bii di Touba ba mel nii. ci wàllum social muy ndimbal Touba ca kanam mu ngi wéy di ci amal ay liggéey yu am solo ne at mu jot ci feet yi nga xam ne moo di tabaski korite tamxarit màggal ba ci koor gi day jébbal ñi nga xam ne seen loxo jotul seeni ginnaaw. moo xam ceeb la suukar meew ba ci sax di leen taxawu ci seen wàllu wér-gi-yaram ñi nga xam ne yenn saay dañuy feebar lool te seen loxo jotul seeni ginnaaw bañ mën a faju loolee Touba ca kanam liggéey na ci liggéey bu am solo ci atum 2019 bi am na sax ay waay laago yoo xam ne jébbal nañ leen ay pousse-pousse maanaam chaise roulante ngir jàppale leen ci seeni déplacement. am na ne handicap pousse-pousse mooy tànkam. kon boo ko mayee dafay mel ne may nga ko ay tànk waaye boo ko ko joxee dafay mel ne defal nga yàlla akub yonentam waaye dafay mel ne boo ko defee itam defal nga ko borom dëkk bi je pense que ni lii moom bu yaatoo gën a dox defe naa ñëpp dugal ci seen loxo defe naa handicap ak ki soxla lekk ndax tubaa ci kanam li ci gën a doy waaye mooy ku ne da ciy gis sa bopp. tey nag kontaan naa bu baax a baax ndax ceeb ñëwoon na yére ñëwoon na xaalisu paas yi ñëwoon na lépp egsi na ci ndimbalu waa ci kanam ak particulièrement social bi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax ne may ngeen ñuy tànk koo mayi tànk nag deseelatoo ko dara kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax. dimbale doomu aadama yi nga xam ne dañoo nekkee ci dëkk bi dafa soxal lool daayira Touba ca kanam moo tax atum ren mi rek def na ci lu toll ci ñaar fukki millions yoo xam ne ci dimbale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw rek la ko def. daayira Touba ca kanam nooru daara yi nii fas yéene sax dàkk ci li nga xam ne moo jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam loole mu fas yéene ko ànd ak mboolem taalibe yi. ngir la Serigne Touba bëggoon ba ñaan ko yàlla suñu borom ci la bul Matlabul Fawzayni naan yàlla suñu boroom maa ngi lay ñaan nga defal ma sama dëkk bu sele bii di Touba mu nuroog turandoom wa ca àjjana wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat loolu nag Touba ca kanam ci lañ nekk subaak ngoon guddeeg bëccëg ba keroog dëkk bi di mel noonu mbokk yi vidéo bi ngeen doon seetaan nga xam ne lépp ay jëfi Touba ca kanam la lépp ay réalisation Touba ci kanam la kenn defu ko lu dul yow ak yow ak yow ndax yéen yéen a joxe seen ñaar téeméer ñetti ati yàlla ñu tàmbali ko ci Touba ci kanam ak léegi ñu dajale un milliard trois cent quatre-vingt-deux millions cent onze mille cent vingt-huit francs dépensé neuf cent treize millions quatre vingt mille six cent soixante francs mu des ci banque bi 469 millions 326 mille 468 yow mi nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan ñoo ngi lay woo nga ñëw bokk ci tubaa ci kanam ngir ñu mën a am ñaari million yi nit kenn ku nekk joxe ñaar téeméer bu boobaa dinañ am ñaari milliards ci weer wi at mi di ñaar fukki milliards ak ñeent te kon liñ bëgg def lépp nañ ko def. Touba ci kanam. tur wu doy waar la. ban bi jógee rek. laa daal di xalaat ne Touba ci kanam ñii de.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 moo xam ci nguur la war a jóge moo xam ci xilaaf gi war a jóge lépp luñ ci def rek Touba ca boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 bu dee ci banque yi ubbil nañu leen ay compte fépp foo ci dem itam di mën a joxe sa barkeel képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 33 978 25 37 76 268 28 28 78 544 33 33 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam